waaw xam nga àddina moom noonu la demee ba pare dafa am leen lu ñu ndaw lu ñu giteen something is really affecting us is this politics mooy politique be I mean ba nga xamee ne some people be they are not sane and then politics am dafa am time boo xam ne we have to jël politique ñu fool ko together paage ko aside because ñu ñëw si développement because su Adama Barrow xoolee whatever comme ñeneen ñi ñu doon xoolee ni ko noon Banjul du dem because politique moo taxoon Banjul mënut a dem because of the former president when he was here, he Dapagisne Banjulians were not supporting him. So he's not going to do nothing for Banjul. That was the big mistake to, I mean, from him because Banjul doesn't belong to Banjulians. Banjul belongs to the Gambia. Understand what So at the end of the day, fee dafa nekk dëkk boo xam ne ba Gambia bi yëpp a ko problems are dying because of Banjulians They seen dreams yëpp seen problems yep. ever since was these roads people would say that NDP has failed. We have seen our own Dr. Cisse writing, Barrow doesn't have enough time. We've inherited a very bad governance system, but this NDP came to guide the Barrow administration. ñu ngi fii si Banjul Allen Street di xool ndax président bi fi tegoon am na wala amut am na lu nga xamante ni defoon na ko fii mooy 2018 ñoo nekk yoon bu nga xamante yokkute la mu nekk yoon bu nga xamante pour na wala amut tey si Allen Street suñu gannaaw yaa ngi ay nit ay xale ay mag ñu ngay liggéey waaye ñu liggéey si yoon bu nga xamante ni ñu ngi koy defaraat waaye dañoo find out ndax lii si bokk ndax bokk si jërëjëf ñu ngi ñëw fii à Sahel Network TV You find out tey nda national development plan bu président bi teg fii dox na wala doxul. national development plan bii nii Alhamdulillah, rabbil alamin is a goal to Banjulians because of this has been our dream for a long time. In fact, Balama Kumase Mawahlen, what Banjul was like, in fact, what Gambia was like, and that's for today after launching this National Development Plan Bini Bi Banjul. I would say this National Development Plan Bini in Banjul is not for only Banjulians, it's for the whole Gambia. Gambia has been traumatized for some time ago. Banjul was in a ditch. We all know what Banjul was like. Nakala Gambia melon why Banjul moo si raw fii amoon jamono boo xam ne yoon amu fi fa dikka ku nekk gis na nu mel we've been living with that for more than 22 years in fact now we're 50 something years because of when Jawara came ok mu ngi fi fekk yoon yoo xam ne la fi bi during the colonial days waaye si ridi am yahuna? Fixuko. fix ko Eh, we had a president Yaya Jammeh ñëw na fii nii mu gën a garaaw Banjul was traumatized straight away. amoon na jamono su ñoo dem marché ah il faut ñu wiit beneen koñ bi nga mun a dem marché ni poto poto bi ak ndox bi nu moo taxawee si mbéeda bi amoon na jamono sooy su tawee doo jaar si eh, naka la première duñ fa dee jaar ni ndox bi daf dee ñëw ba sa ndigga ku melni man duma de jaar foofu non dama am pour wiré nga mëna dem marché yaa maa dégga ko paré dafa baroon yo torop tali dafa dafa am ay pax pax nga moto yi dañ dee dem moto yu bari sen bagage yi dañ dee yàqu comme so dee wax wax comme mbiri a apart from yooyu ah tali nga like seriously tali nga wax tali yeah because because because tali du bon ba pare nga expect moto yi di goal xam nga di pass nga fa wéni so so xam nga comme comme man seulement lu sa comme tali bon sax yene daf di mëna contribute to some kind of accident nga fa wéni comme comme sama witness de waaye comme xam nga comme in my own perspective you know because because nga gis ne comme dara comme su smooth comme there will, there will be no some kind of complication or problem ay nga gis ne comme comme su kind of rough xam nga comme mën a gis jafe-jafe so Banjul yow sama mënon wax Banjul déma ak Banjul tay what is the difference uh, the, the, um, the difference is like day and night. Yeah, like like seriously speaking, seriously speaking, it's like day and night because because for we for we Bandulians, you know, you know we have we have you know we have earned for this, you know we have you know, you know it's it's like it's like a dream come true. Yeah, it's like a dream come true. Yeah, because like so many years, you know, a whole capital, you know, a whole whole whole capital is like it's like a forest or some kind of isolated area, and it's not so. Banjul démba Banjul melu woon na capital Banjul démba dafa mel ni dëkki kaw ñoo ko tane sax dëkki kaw yi ñoo ko tane ndax suñ demee marché yére bu baax duñu nangoo sol duñ ñemewu ñoo sol yére bu baax daa suñ ko solee suñu ñëwee dañuy uti ordre de service la omo because of Banjul nekkoon na dëkk boo xam ne soo fi ñëwee da ngaa ni da ngaa laajte fan mooy capital bi. we witnessed I came from Senegal maa ngi ñëw si Baara maa ngi ànd gan biñ àggee Baara bi wàcc a Banjul daf ma laaj ana capital bi loolu moom xam nga loolu was shocking waaw mu ngi maa wane ma capital bi. so bi ma wane ma ana capital bi ma ne ko bii mooy capital bi he couldn't believe it because he was from Senegal he was from the capital city Dakar waaye ma leen a explain leen Banjul Mom Street, the way the streets were was really, excuse me for this language, was disgusting. We all know that the Banjul was in a ditch. There was nothing in Banjul some days ago. Bofu wahnala lulu, bobo mom kendo du ko wax ken Banjul mom gate la one. Su tawé moto do daw bicycle do daw dox pour nga daw daf tontu domoda. Wa Banjul mom daf daan tontu domoda, domoda nga daan am. Dafa xonka ciur waaw sa soo doxee sa soo duggee sa biir kër ngay war a si dugga sa biir néeg da nga am pour simi daala yi si bunti kër gi nga mun a dugga si biir kër gi sax nga mun a dem si pompe bi sa sa tànka yi a look like a capital but a capital looking like like like some kind of dump site or some kind of you know so it's it's, it's kind of it's, it's kind of terrible so banyul time boobu ak Banjul léegi non it's different nag ban moo gën ban moo gën nga fo non bi moo gën lu Development. Wow. lu ko waral. ceeñi Banjul nu meloon ba Banjul la de ah no, la meloon bi léegi de at least sax we are seeing some kind of improvement although it's not that improved like how we want it because because the government cannot cannot do do everything yeah like seriously the government cannot do, cannot do everything so you know at least if we have some kind of agencies or philanthropists you know that will lend a helping hand you know at least you know to make Banjul what Banjul has to be. So the family is yow nguur try. Definitely, definitely, definitely they are trying. Definitely, definitely they are trying. You know, like seriously, they are they are trying, and you know they they, they have not spent about five six years, but it's like they are they, they are here like since you know like 20 20 more than 20 years back. You, you, want, you want to say what the previous government did um, this government has superseded what the when it comes to development? <laughs> um, for that will be too hard to swallow. But you know, you know, I, I, I can take it. Yeah, yeah, yeah, I, I can take it. It is indeed a pleasure and an honor to gather here today to launch the groundbreaking Banjul sewage, drainage, and road rehabilitation project. Why, Alhamdulillah Rabbi Alamin, when we got a new president called Adam Barrow, mu ñëw a plan bii nii ak yéene bii nii ak xol bu set bii nii pour war a génnee Gambia si toroxaange because soo ko xoolee nga xool Banjul tey foog naa moom wéedi wante amu si when you look at Banjul you know Banjul today is turning to be another thing it's like proper capital city foo dëkka man Allen Street fii laa dëkk Allen Street waaw tey lan nga fi wut yaa ngi dem school ndax déedéet nagoon di dem school because right now corona bi ñëpp ñu ngi indoors soo léegi ma désire ma ne ba ma ñëw uti fii liggéey ma mun a lifin dimbale suma bopp ak suma yaay. soo yow si liggéey bi mun nga si dimbal sa bopp. waaw. kan moo leen jox liggéey bi. Xaadim Gueye moo ñu ko jox. Xaadim ma nekk ak góor bu nekk di liggéey ak government bi. bu nekk government ñu ngi am projet ci liggéey tali bi léegi bi ma nekk di aidul foofu ma ñëw ma ne ba ma ñëw fii ma liggéey ma xam ne su amee tuuti sax mun naa dimbale suma yaay. so so am hadim Gueye ak euh, lan projet la nekkay doxal fi yan projet la sen construction bi nekkay def ne dafa projet yi street tali biir Banjul waa arama baro projet so legui mom len am lañu ñu employé pour ñu dimbalé ko mo len employé pour ngeen liggéey wa legui xanaa tali am na njëriñ wa am na njëriñ gañ di su ëllëgee suñ magee hmm. mun nañoo toog ñu toogaa suñ doom ñu wagaay ñoo doon liggéey tali bi nii ak nii yoon yi daal soo doon jaajëfal kan nga ko mën a jaajëfal. ah am like this present government yeah am ak ak you know ak ak ñeneen ak ñeneen tam xam comme ñoo xam ne nii xam nga comme comme comme def seen level best put nañ a lot of effort you know you know for Banjul to be what it is yeah. kan lay jox contrat bi est-ce que Gambien la sax. contrat bi ah contrat bi yeah yeah am although so come, come, you to the Hadim guy. How ma yeah so so so so he's a Gambian and also Wabangula. you know so so you know and and you know for him to be a Gambian you know at, at least you know it will it will boost our morals you know so that so that so that youth, you know can can you know can adventure more you know at, at least it's better than you know sitting idling or you know something like that. project being in Munko launched launch in 2018 if I could fully recall 2018 I mean launch project bini. Why I've been launching project bini within 2018 ak léegi fu mu so nii soo xoolee biir Banjul yow sa because of Banjul here we got 76 streets in Banjul 76 streets you know, foog naa am 2234 households compounds in Banjul here right now Why, with a population of 30. 1000 people in Banjul so Banjul dafa 76 streets yi soo ko xoolee yëpp waa ji mu ngi koo laal Banjul is turning to be another thing we all know that. gis nañ yoon ñun de li ñu mën a wax baro moo ko defar ndax ci biir baro bi la ñoo si nguuru baro bi la ñoo gis lii waaw nguuru gisuñu ko nguuru Yaaya Jammeh gisuñu ko woon. kon nag nguuru Barrow la ñoo gis la ñoo wax ne jaxal waaw ñun de gis. because I mean the help of this new president Adama Barrow that actually came with a mind and then the heart and then the true leadership. Bam mu gis ne Banjul is our capital city it doesn't belong to Banjulians it belongs to the whole Gambia because su Banjul félee Gambia bi yëpp a so Banjul Bahe Gambia be for Bah. So Banjul is for Gambians, it's not only for Banjulians. Let people stop thinking Banjul is for Banjulians. Banjul is for the whole Gambians. And then achievement Bobu noonu su happenee ñun ñëpp la xawal. bro man tey dama ñëw Banjul di seetaan waaye dafa mel ni gisuma ni yaa ngi toog si koñ bi lii lu ko waral. am li ko waral mooy mbéy bi am nekkul mbéy bi sax because because léegi moom comme nga gis ne comme léegi comme toog bi comme toog bi daal comme comme mu amul njëriñ daal comme mu amul jus. nga xam ne soo soo jógee comme comme nga dem def dara at least sax you know at the end of the day you know nga comme loo mën a am sax you know waaye Banjul dafa ndaw mun na fi def dara ndax léegi am na fi liggéey bu nga mun na si yëngatu. ah waaw waaw dëgg comme dafa ndaw de it's one of the smallest capitals you know in Africa yeah like like seriously yeah because um road construction you know is going on xam nga comme at least nga comme youth si comme ñu ngi see dugga andi sa uh, you know gars yi am dara tuuti uh, sa you know comme moo gën toog bi xam nga ak non ye ye way banjou mu nek capital yaakaaroon ne am na yoon yu baax waaye dafa melni ni yoon yi dafa tardé waaw waaw diga yoon yi kañ dafa tardé won dafa tardé won ye because because because yoon yu yep um nguri nguri nguuri jawara bi maybe dafa ñëw romba ko fi so nguri ya jame tam maybe tam ñëw romba ko fi so nga gis ne comme recently nguur boo xam ne nii comme amangu five years bu correct sax xam nga ñooñu xam nga at least sax di def some kind of changes wala some kind of development xam nga yeah at least sax you know we appreciate that at least at least comme comme comme nag ma ne just chastise comme the former regimes or something like that but you know at least ñoom seen régime yi yàgg nañoo toog ay more than twenty something years waaye waaye régime boo xam ne nii toog a nguur benn five years bu correct six years sax comme comme mi ngay def loo xam ne nii comme yàgg naa min comme yàgg naa toog four years nga fa waxee nii so xam nga loolu loolu c'est développement boo xam ne nii comme diga diga appreciate no ye appreciate no ye because as as ma ñun wa banju because wax bi dafa yaga bari trop bi dafa yaga bari de ye like serious dafa yaga bari comme bam façon wax comme way la xam nga because comme so day wax wax comme bi banju apart from yoy ha ah, tali nga wax like seriously tali nga wax tali so hole banju rek comme ni ko waxe ci starting bi so hole sa ganaw li nga gis ne dia is this project bi mo ngi dem on they are si yoo xam ne de from Banjul fii lañ juddoo yaroo fi it has been I mean thing to Banjulians ne Gambia bi yëpp ne waa Banjul bugguñoo liggéey dañ lazy dañ war no it is because of the system that was here make Banjulians lazy right now boys yi ngaa gis ni yëpp waa Banjul lañ xale yi yëpp waa Banjul lañ maa seen papa yi ñoo dee toog suba ngoon gudee bëccëg man mi sa suma doom mu ngi si ñu ngi liggéey si projet bi so xale yi dañ lu luñ def It was not fair for us to be blaming the kids directly 100%. It wasn't, the fault was not only about the kids. We also had contributed because of system bi mooy government bi dafa contribute system bi daf ñu traumatized ba nga people We amuñ toon joti xale amuñ joti nothing But at the end of the day tell fu ñu nekk ni ñaa ngee Banjul hale yi deka dëkk jom parce que liggéey ñuy ay xale yu ndaw ñoom ñoo ko amee di ko liggéey ak ay professionnels yoo xam ne dañ leen jël contrat pour ñu mun a liggéey liggéey bi waaye di nga capane si biir loolu eh, am na ndaw yoo xam ne tey alhamdulilahi rabi alamin macha allah waaw lii nag moom ñun kontaan nañ si suñ kontaante rek lañ si gis. léegi ñu ngi change foot pass yi ñu ko defar yëpp maanaam léegi nit yi sax dañoo mun di toog foofu di guddi gaa di waxtaan. léegi gaa ñu ngi defar tali pare suñu defaree tali bi ba pare yooyu itam dina wàññeeku. waaw xanaa kan moo leen nekkee defaral tali bi man président la Yaya Jammeh la Adama Barrow. Adama Barrow. président Adama Barrow. waaw depuis kañ yàgg na. waaw yàgg na. gis naa daal liggéey baa ngi dox na doxut. liggéey bi mu ngi dox kay. so yow liggéey booy def. waaw ah, si bu bari fu mu nekk ko mën a xam bi ma mag ma koo ko defaral suma bopp tam bu la gars di mën a xam ne am naa expérience si liggéey bi. so yow fii la nga fi dee def. sometimes dama dee nek ci box yi di wàcce concrete yi ngoo tas yene ma ma pousse mu ngén takata bi waaw mu ngeen taka ñen dee taka win tam sometimes dañ dee mu nan naka semaine bi yépp fii ne ligé bi fi moy président Adama Barrow té ñu ko grève ci bu baax bu baax ndik fii yoon yi first time bi tam way ligé ñu ko défa mu ngi correct mel ni fii youth si tamit si kaw liggéey bi créé na employment opportunity oh oh definitely definitely definitely it has definitely definitely because because if, if you look at it um all all the all the sites you know if you remove if, if, if you minus like the people living in Banjul you know the majority the majority lives in Banjul here you get me so so so like for example you this site you know we have like 20 people here so those 20 people It's only five people that are not Banjulians. So all the 15, they are Banjulians. So you see, you see, so so long as you come, come, so they 20 minutes la daal comme ñoo nekk si side bi comme 5 nit bi comme 5 nit yi come comme waa Komole xam nga wala waaw waaye 15 yu des yëpp waa Banjul. waaw yow tey uh, Banjul tey soo doon advice you see. la nga ñu advice. li ma advice yu si mooy ne. Eh, alhamdulillah rabbi alamin yusi see, nga leen a wax fu lu ndaw la because yusi ko si wax rek right now dula de wax dara ganaw Adama baro Banjul si bopam fi ni degal la suma ma la amut bena bena duma wax mbol bena bena ño fi nekk ño xamne they are not in for this whatever the man is making for Banjul I mean especially Gambia waji ji mu Gambia youth men yi nga gis ni ñëpp a dee so soo toogee nga wax a gars yi fu mu la wax de a all die hard yi Adama Barrow lañ because liñ bugga seen dream si Momla la Adama Baro, momla la leen isil dreams has come true Adama Baro is doing lot for Banjul and he is not only doing doing it for Banjul he is doing it for the Gambia because Banjul is the capital city of Gambia anyway, His Excellency President Adama Baro, I mean, I would like to give you a short advice Uh, am not in the position to give you advice but of this opportunity I will take it to give you advice <laughs> advice bi malaa jox mooy ne dëkk bii nii alhamdulilahi rabi alamin wel yaa ngee liggéey nag waaye nanga nga xam ne ni ngaa liggéeyee ni ngaa gasee noonu la nit ñi di suulee waaw yaa yaa is a big problem behind you and then waaye incha allah rabi li ngaa def nit ñi dinañ la si mun a jàppale parce que nit ñaa ngee gis fu mu nekk si ignorance yi ñu jàppee woon mu ngi wàññeeku they are a lot of ñoo xam ne they are aware xam nañ lan mooy changes bi gis nañ changes bi suñu boppa bi ko sol li bët gis jéemeñ mënu si dara fi ma advice mooy ne dëkk bi fu mu nekk nii dem na kanam lu ndaw rek moom moo des si ñun fu mu nekk nii liggéey bi dëgg la xale yaa ngi liggéey waaye des na tuuti ba pare dañ nit moo sécurité Security model yogurt deka dëkka su sécurité amul du am fum nek ni dal su am jafe-jafe jafe-jafe am na Why new ñëw nekkul society yoon nekkul society development because xam nañ ne ku ñew di la bilal yoon koku mën na la yéné lu nek ci kanam touti maybe 10 percent bi he will come out with it I, and I believe ne he will sort it out because he is there to sort out our problems as a president diaspora bi dama advice Gambian bi because of gis nga there a lot of people boo xam ne ñu ngi si diaspora bi they taking the gam weakness si Gambian bi la ñoo jël because of they think most of Gambians are ignorant lii mooy suñ problème and it is true because of most of Gambians are ignorant li ñu ignorant mooy ne Gambian bi du dee research people don't read people don't listen to news daf ñu ignorant loo daf ñu léeloo baak waaye at the end of the day ku nekk xam ne diaspora bii nii there are people ñoo xam ne they are just against the system because of ñoom itam ay politician lañ moom moo fa nekk gannaaw loolu dara nekku fa maa ngi advice Gambian bi let's forget about these people ñi nga xam ne dañoo ñëw di ñu tam xam nga di bitaam di ñu jaxase di isi loo xam ne amu fi di jël suñu weakness for a kindness it is wrong ba pare ñu xalaat leen añ leen gis na suñ ñëwee si développement añ leen dee wàññi yëfi xaalis tuuti because ñun ñu bari dañ gom dara so ñëwé jox touti xaliss rek nga xam nga ñu crop la rek nga yaa FF yoy lañ fi bëgga a diaspora bi taxawut fen ñi nga xamé ni ñii dañ nekk ci diaspora bi di against government bi ñom nañ ñu wax lañ ñu fi defal nañ ñu wax fan lañ jagar ku ñëw demba demba di jagar nga ñëw ni dang ko against just because of your interest. But Banjul, you know, Banjul is Banjul today. is turning to be another thing. It's like a proper capital city. mu ngee tontu bi a proper capital city. Gambien bi bari tamit ñu ngi koo xeeb ñu ne yoon yi rek yoon yoon du dara yoon rek la leen defaral fii. waaw léegi because of ladder. So, koy éeg da ngaa éeg laada from num laada number one ngaa stepped you step from ladder number one to the last step you can't jump from ladder number one ne dem number ten it's practically impossible. and then fii dafa nekkoon dëkk boo xam we can see everything dafa dooloon nothing was working and then the man came in. So moo def ni def ko def step by step la. Rome was not built in a day. The man is doing his bits, he's doing his duties as a president, as a leader. su ma déggee noo ko waxee dafa mel ni national plan bi lu am la. national development plan bi lu am la because of soo ko xoolee Adama Barrow mu ngi doxal exactly national development plan bii nii bi mu lonc mu ngi xàppoon biir Banjul because of fi ñu taxaw nii right now si national development So just a few meters away from us, you will see people constructing. You will see kids and professionals out there doing their bits. They are doing their job. So there is nothing lu bët di gis weddiwante xëju si. parce que dafa mel ni defar yoon bi rek nekkul loolu rek la président bi because I think mu ngi dafa mel ni mu ngi ubbi tamit liggéeykaay employment. li moo ubbi sax dafa bëri sax ma ne la fu mu nekk nii sotaawut nañu almost about 70 to 80 percent of ñun luñ because of noonu laa because of tey. And employment you want because of these kids are working and then they but then don't point finger and they are useless they are hopeless they got nothing to do why it was the system that fails them but this system is doing something about the kids which is a different big difference they make so at the end of the day Adam is doing something for Gambia and especially Banjul capital city bi te ko commencé fa la ko war commencé fii mooy laada number one mu éeg si commencé number ten mu si suuf nga jógee ko capital city you want to go to Rome and then wala au Basse nga build up Basse nga ne da nga amee ñëw nii loolu du achievement pour fen te nga ñoo compliment recently gis nañ président Barrow am leadership pour am result la mooy nga liggéey nit yi gis te waa Banjul am na lu Adama Barrow jot a defaale gun fii te ñu koo gis recently samp na parti politique am bi nan nga koy encourage am um, yeah ma ko encourage daal waaye am um, comme comme xam nga comme as waa Banjul sax moom mo xamna naka la sax moom xamna na lu wara def xam nga jox xam nga comme di ko encourage xam nga comme mu gëna comme mu gëna dëgëral lu mo def xam nga comme comme di ko compliment ci effort sam yi xam nga xam nga xam nga comme ni sun xam nga support xam nga fa nii xam nga waaw adam baro man maa tudd Lisa Dabo sa liggéey bi rafet na lol gis nañ ko waye liñ bëgg xana nga yokati ko kontan nañ ci torop ñun kontan nañ ci ñun nañ ñun sa gannaaw tey ñun sa gannaaw ëllëg incha allah. Ah, leadership is a te Adama Barrow mu ngi wane yéen si waa Banjul result te gis ngeen ne recently samp na parti what do you have to say about that. ñu jàppale ko. waaw parce que parti bii nga gis ni muy I mean NPP National People's Party. amba lu óor la te lu am la te dafa waroon a am lu yàgga waaye tey la ko yàlla sootil Adama Barrow su taxawee fom parti dañ koo jàppale fukki loxo te maa ngi advice Gambian bi let us not be see and blind and hear and deaf ñañ saani yëfi mbooka yëfi suñ gis na su ñëwee si développement ni dëkka mbooka amut tribe amut dara amut li am mooy dëgga liggéey waa ji mu liggéey na Gambia bi yëpp booka dimbale ko jox ko loxo buñ ko jiital fakastal ko ñu bàyyi ñi nga xamee ne tamit ñu ngi foog ne ñun si gannaaw ay di ko fakastal ñun xam nañ li xew te mu ngi fii du xaaju jeex waaye duñ mën a succeed because of Banjulian si ak Gambian si seen dream si moo come true Mao elaborate a little bit about nu Banjul meloon tey when it comes to security discipline bi amoon biir Banjul système bi dafa fail youth maa ni bi li li tax mu became very reluctant they were not doing anything ba ñu ngi toog waaye tey nga project boo xam ne xale yaa why see project bi unemployment bi benn tey mu need nañ support education yi xale yi health care bi yii nii dañ nekk loo xam ne war nañ koo reinforce i like i am a voters card right now Why come come come if I if I were to vote come su ma ko doon right now come on laa doon yeah surut um, surut dara sax xam nga comme change of government bi number one yeah number two comme xam nga comme comme effort yu mu def pour make sure ne nga Banjul Banjul Banjul supposed to be what it has to be you know yeah. gis naa Barrow dafa bëgg a dëkk bi kon nag su bëggee dëkk bi ñun toppa ko du noonu ah loolu la